SeneInfo internet yi safoo SeneInfo point net ak SeneInfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey vendredi di 6 novembre dañ koy tàmbaleeg xibaaru biir réew mi tribunal bu Dakar nag euh, amal na ab atem euh, ci mbirum ñooñu nga xam ne dañ leen doon jiiñ wàllum euh, ngóor jigéen te ñu jàppee leen ci benn apartement fële ca Sacré Cœur kon te ñu jàppee leen fa ci benn appartement ci samedi 17 Euh, dans la di du di 17 kon euh, ci guddig samedi 17 jàpp dimanche 18 octobre bi weesu lañ leen jàppoon kon ci ab appartement fële ca sacré ñoom nag ñu fa doon amal ab mariage mariage boo xam ne euh, entre góor jigéen la ak anniversaire boo xam ne sax nañ ko doon amal ci góor jigéen ki nga xam ne nag moom moo organisé woon mbir ma ak ki mu bëggoon a takk muy ñaari góor ñu bëggoon takkante kon ñoom daal teg nañ tëj nañ leen daan nañ leen lu toll ci 6 mois muy juróom benn weer de prison ferme am na si juróom yoo xam ne dañ leen condamné à 3 mois ferme maanaam ñetti weer yoo xam ne dañ koy tëdd mu am kenn koo xam ne kon dañ koo relaxé purement et kooku bàyyi nañ ko toppayuñ ko dara am na am na itam fukk ak ñaar si ñoom muy 12 yoo xam ne ñoom daal dañ leen bàyyi euh, au bénéfice du doute maanaam daal euh, dañoo amul lu leen leer kon euh, ci seenu ci seen participation ci mbir moomu daal dañ ci amul lu leen leer lu toll fukk ñaar kon dañ leen ñoom daal dañ leen bàyyi kon dañ leen relaxé au bénéfice du doute la teranga info moom moo joxe euh, xibaar bi ni mel. Aminata Touré nag euh, gannaaw bi ñu ko jëlee ci bopp conseil économique social environnemental. Euh, le premier novembre bi ñu génn moom nag bésub tey bii daal la nar def tàggatoom ak lii di kër googu la nga xam ne mu ngi ko doon jiite kon bésub tey bii la fa nar a def tàggatoom ba pare déposé ay rapport am foofu le lu ko weesu na gannaaw loolu itam tam fas yéene amal ab déclaration bu importante kon fas yéene ko amal tey déclaration bu am solo bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy service de communication am na nag ay jegeñaale Aly Ngouille njaay yoo xam ne dañoo mer ba futu ci kon dàq bi nga xam ne kon kii di Macky Sall euh, dàq nag ko euh, ci li nga xam ne ministère de l'intérieur la kon jële bi nga xam ne daal Macky Sall jëlee na ko fa kon loolu daa métti trop ay jegeñaale Aly Aly Ngouille Ndiaye ba sax tax ba ba tax ñoom ñu wax ci journal L'As nee nañ daal li ni mel daal euh, li nga ko mën a jàppee daal mooy ab trahison ñoom daal leenañ mbir mi trahi trahison la ñoom it weddi nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo jegeñaale Aly Aly Ngouille Ndiaye yooyu weddi nañ daal lépp loo xam ne kon ñu ngi ko doon wax lu si mel ni président Macky Sall kon dafa proposé poste secrétaire général de la présidence wala poste secrétaire général bu gouvernement bi am na ñu doon wax ni da koo proposé da koo proposé woon Aly Ngouille Ndiaye ñoom weddi nañ ko ba mu set wecc ndax sax ñoom nee nañ ñaari fan lu jiitu ñaari fan euh, lu jiitu kon ñaari fan euh, remaniement bi euh, kii di Macky Sall kon ak Aly Ngouille Ndiaye ñoom sax nekkoon nañ quoi ñu ne lu jiitu kon ñu ne kon lu jiitu ñaari fan euh, balaa ñuy amal lii di remaniement bi kon Macky Sall ak Aly Ngouille sax nekkoon nañ wante taxul Macky Sall wax ko benn euh, wax wax ko dara ci lu jëm kon ci boobu boobule ba tax sax ñoom jàpp nañ ne kon lii di remaniement bi daal jàpp nañ ne daal kon lii di remaniement bi daal ab trahison la. conseil de discipline de la magistrature moom nag démb amal na ab ate ci mbir mi nga xam ne moom moo opposé woon kon. Euh, Euh, yaaya Amadou Kane di conseiller Yaya amadu ja di conseiller fële ca cour d'appel euh, bu Kaolack ak Ousmane Kane mi nga xam ne moom mooy jiite cour d'appel boobu le euh, kii di juge Ousmane Kane nag kon gannaaw bi nga xamee ne kon daal déglu nañ ko moom mën nañ jàpp ne kon kon nañ ko maanaam daan nañ ko li ñu ko daan nag mooy balaam balaam daan lañ ko jox kon Euh, loolu di conseil discipline daal ab blâme la ko servir kon ab blâme lañ ko amal euh, buñ sukkandikoo ci journal quotidien moom nag nee nañ li ñu koy reproché mooy dafa organiser ab conférence de presse gannaaw bi nga xamee ne euh, kii di juge Yaya Amadou Dia amaloon na ay accus ay accusation jëmale ko si moom wante ba léegi sax kii di juge Yaya Amadou Dia it tribunal ñoom it auditionné nañ ko kon kii di kii di juge Amadou Dia moom it Yaya Amadou Dia auditionné nañ ko Euh, ndax gannaaw bi nga xamee ne déglu nañ ko sax kon lii di inspection générale de l' administration de la justice moom tam dafa fas yéene topp kii di juge Yaya amadu ja si mbir moomule ci international ci xibaaru international nag euh, daa am ay télévision américaine yoo xam ne kon euh, xam ngeen ko fi mu nekk nii moom lii di présidentielle américaine bi moo gën a fës ci xibaaru bitim réew daa am ay télévision yoo xam ne nag kon dañoo dagg Euh, seen euh, seenub signal gannaaw bi nga xamee ne kii di président Trump mu ngi doon amal ab allocution kon ñoom nag li tax ñu dagg signal bi dañoo yaakaar ne daal président kii di président kon Donald Trump da doon def désinformation maanaam di wax lu mbir yoo xam ne daal wérul euh, Donald Trump nag gannaaw bi nga xam ne sax mu ngi doon amal première allocution depuis bi nga xamee ne kon ci lañ amal élection président muy depuis depuis depuis jour vote ba kon muy première déclaration bi mu doon amal moom nag dafa wax ne dafa jàpp ne dinañ gagné daal facilement lii di élection yi dafa jàppane kon dinañ gagné facilement lii di élection yi bu fekkee ne daal kon euh, ay vote légaux maanaam bu fekkee ne euh, vote yi jaar yoon euh, comptabiliser compté nañ ko kon dinañ gagné élection yi wante nag bu fekkee ne vote yu jaarul yoon yi dañ koo dañ koo comptabiliser vote yu jaarul yoon mu ne kon bu boobaa lii di démocrate yi te démocrate yi moom mooy opposant di Joe Biden mu ne ñoom dinañ jéem a sàcc lii di élection yi bi loolu amee rek kon la chaîne bu mel nii MSNBC ñoom si lañ sax dagg seen diffusion en direct amaat beneen seen bu mel ni NBC News ak ABC News ñoom it dagg seenu ay direct li nag euh, suñu naataango yu waa Figaro euh, ñoom ñoo ko xam ne dañuy ni sax foofu ca euh, États-Unis Amérique nga xam ne fi mu nekk ni sax kii di Joe Biden daal moom moo gën a jege Donald Trump lii di victoire bi gannaaw bi nga xamee ne am na 917 bulletins d'écart am na kon Joe Biden am na 900 bulletins 17 d'écart Euh, fële fu ñuy wax euh, Géorgie état bu Géorgie kon am na fa jiitoo na fa Donald Trump lu toll ci 917 bulletins euh, foofu la ki Géorgie sax instant yi def nañ lu toll ci 99 pour cent daal ci suffrage yi fi mu nekk nii comptabilisé nañ ko ba loolu daal tax nañu yaakaar ne kon kii di. kii di kon Joe Biden boo moytul sax dina remporter loolu di Georgie te njort nañ ne bu remporter Georgie sax mën na am kon mu remporter élection présidentielle bi ndax moom moomali Joe Biden sax fi mu nekk nii ñu ngi naan am na 253 wala 264 ci grand électeurs yi ndax dafa am ay incertitude euh, fële ci résultat yu Arizona wante daal jàpp nañ ne am na 253 wala 264 grand électeurs te Donald Trump moom 214 grands électeurs la am te ñu jàpp euh, ñu fàttali ne ku am 270 grands électeurs rek yooyu remporté lii di élection euh, présidentielle bi foofu la ca Amérique. ñu jeexale ko Iba euh, ñu jeexale kon xibaaru sport ak CAF CAF nag dañoo amal ab visioconférence boo xam ne daal. Euh, dañ ci woo ay officiers nationaux de sécurité ak sûreté yu bépp association membre bu CAF pour former leen ba pare informer leen ci nouveau protocole de sûreté ak de sécurité bi nga xam ne pandémie Covid 19 bi moo tax ñu amal ko euh, ci li ñuy dëgmal kon lii di Coupe d'Afrique des nation bu 2022. ci point yi nga xam ne nag waxtaan nañ ci nag euh, moom mooy nan la ñuy amalee ay match à huis clos match yoo xam ne maanaam benn spectateur du ko fekkee ak it nouveau mécanisme de contrôle boo xam ne kon. moom mooy nouveau mécanisme de contrôle des accréditations et des nouvelles zones d' waxtaan waxtaanee itam lu mel ni différence entre match à venir ak précédent match maanaam match yi ñu weesu ak match yi ñu dëgmal différence yi ñu nar am waxtaan nañu am ci nécessité pour chaque association euh, membre mu disposer d'un bon plan de sécurité ak sûreté balaa ñuy reprendre daal effectivement li nga xam ne moom mooy match officiel li la ñu leen tey ci xibaar rafetlu seen teew